waaw xam nga tey dañu amoon sa ndaje pour jox xale yi seen euh, attestation yi nga xam ne day jëmmal formation yi nga xam ni euh, mën naa ni bénéficié wu nañ ko ci semaine bi ñu génn ci Thiès muy formation yoo xam ne dama ko lancé woon ci Thiès pour may ko jeune Thiès c'est vrai ko formation bi ñu ko lancé nag ñi ci inscrit woon bëri na ndax ay junni la ñu woon jóge fu nekk mais waa cees ñu ni dañ ciy jël juróomi téeméer commencé ak ñoom tey juróomi téeméer yooyu pare nañu ba jox nañ leen seen attestation mais dama ni du ñu yem rek ci loolu dama lay indil ñaari mbir dama ni ñi nga xam ni bëgg nañu gën a xarañ ci formation ci métier numéro yi ñu tànnoon nañu jege pôle emploi bi nga xam ni président Lab daf ko ubbi Thiès pour ñoom ñu bénéficier bourse yi nga xam ni 3FPT daf koy maye pour ñu mën a gën a am xarañte mooy ñu fay leen jàng peut-être un an deux ans pour ñu spécialiser wu ci gën ci beneen bi mooy financement yi nga xam ni xale yi dañ koy soxla dañu bëgg mu gaaw te nga xam ni souvent loolu moo leen di gàllankoor pour développer seen activité yi donc euh, pôle emploi bi xam ngeen ni président la euh, nu mu di dugal na fa 4 milliards ndax si 67 milliards yi nga xam ni ci 150 milliards yi moo jëm ci financement Thiès am na ci 4 milliards mais loolu tout le temps président de la day wax nañuy baral suñu procédu nañuy wàññi procédure yi pour que financement yi di gaaw ma ne ci loolu dinañ gën a xale yi ñu jege pôle bi mais en même temps dafa am benn banque boo xam dama doon liggéey moom ci financement femmes yi ndax dama annoncé woon ni 100 millions laay jox lee femmes tey yàlla dogal na financé nañ 33 groupements ñu ngi demaat ci 67 pour boucler première phase wu 100 groupements mais dañuy demaat beneen 100 pour motal les deux les 100 millions ndax 100 yi pour 200 groupements la loolu maa ngi koy continuer beneen bi dama amoon yéene pour jàppale ndaw ñi également ni ma jàppale jigéen ñi jàppale ko jeunes yi moo tax tey ma annoncé enveloppe xam ne dañ ciy tàmbale ak ndaw ñi 50 millions boobu banque bi moo doon liggéeyal ak famille moom laa koy liggéeyal ndax man comme li ma wax man damay jël caution bi en charge ubbi frais ubbi compte yi ak intérêt bi nga xam ne banque bi da koy laaj dama koy jël en charge pour may ko xale yi moo tax ma ne leen ñi nga xam ne am nañ projet yi taxaw na nañu nañ xam ne am na enveloppe cinquante millions mën nañ tàmbaleeg loolu su trois mois jotee ba ñu gis ne xale yaa ngi remboursé ñu ngi correct ci liñ leen kii ñu daal di yokk dem ba cent millions loolu tamit day ànd ak li nga xam ni au niveau du pôle emploi mu ngi koy def pour gën jàppale xale yi mais également man amoon na liggéey ak xalaat bu ma amoon depuis bi ñu dëggee ci gouvernement bi ak waa DER ba waxtaan ci woon nag le délégué à l'époque waxtaan ak moom man ak Pape Amadou Ndiaye d'ailleurs ak ministre ab euh, nu mu tudd du tourisme. Euh, Alioune Sarr ñu ni ko woon dañu bëgg def un programme spécial pour Thiès ndax waa Thiès comme dugg nañ ci gouvernement bi dañ naan aussi kan lañ lañ leen di indil donc moo taxoon ñu waxtaan daal ni instruments yi nga xam ne président de la République tegoon na ko en place ko def bénéficier wu waa Thiès malheureusement woon na nag. mais tey pare nañu aussi ak euh, équipe bi nga xam ne mu ngi deer pour relancer waat dossier boobu waxtaan ak ñoom pour que aussi waa Thiès tamit ndax quand am ci lañ bokk mérité nañ ko ñu xool nañ leen di def ba jàppale leen ñoom ñu gën a wu ci financement yi ak avantage bi mooy ñun li nga xam ne deer da koy laaj muy cinq pour cent ci financement yi ñun ñu dugalal ko xale yi jëlal leen ko en charge nga xam ni xale yi duñ fay dara ñun ñooy supporter loolu lépp pour ñu mu gaaw pour ñu financer leen. cette formation au métier du numérique et pour. Euh, se réjouir de l'engouement suscité par cette formation, au niveau national même, et dire que peut-être Thiès a été euh, la première euh, région bénéficiaire, mais c'est un programme qu'on veut national et qu'on a soumis au chef de l'État pour, dans le cadre naturellement de l'accompagnement des jeunes, mais également du renforcement de capacité en compétences numériques, donc de la population d'une manière globale. Donc, comme vous le savez, dans le cadre du programme Khouy le président avait beaucoup insisté donc, sur la formation et la capacitation des jeunes. Et aujourd'hui, le constat général est que nous constatons nous tous le basculement de la vie des jeunes dans le numérique. Et de là, c'est d'une manière globale. De, de, de, de, ce point de vue-là, nous avons l'obligation morale d'accompagner cette jeunesse, mais également de les capaciter en compétences numériques pour qu'ils puissent également bénéficier de toutes les opportunités qu'offre aujourd'hui le numérique dans le monde. Nous avons une jeunesse intelligente, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui en veut. Donc ce qui reste, c'est l'accompagnement, c'est l'encadrement Et aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État a démarré avec euh, le, le, concept Djokog Maki, qui est un concept de, de dialogue et d'échange direct avec les populations pour euh, euh, une, réception directe des préoccupations des populations, mais aussi pour des solutions immédiates, nous souhaitons par le numérique essayer de donner des solutions concrètes aux préoccupations des jeunes. Aujourd'hui, nous avons démarré par Thiès, mais naturellement, nous allons lancer en fait un nouveau programme pour la région de Dakar. Le chef de l'État a lancé un programme spécial pour le département de Pékin et certainement pour Kermassar. Et nous allons naturellement apporter notre contribution donc avec des formations concrètes aux, aux jeunes de Pékin et de Guédiouaï et de Kermassar. Mais pour la région de Dakar, nous allons naturellement offrir à chaque département minimum 1000 formations en, au métier du numérique pour les quatre euh, départements donc, la région vous savez, dans aux jeunes et comme je euh, commencé avec les femmes, j'avais commencé avec une de 100 millions que je suis en de, de poursuivre. Donc nous avions déjà donné euh, 33 groupements, euh, euh, mois. Donc nous allons poursuivre avec 67 pour boucler les 100 groupements avant d'aller donc, comme j'ai dit, jusqu'à 100 millions. Donc, je vais travailler à mobiliser de Thiès. En marge de cela, j'avais annoncé également donc les jeunes. Et d'ailleurs, je dois avouer dans ce cadre, j'avais déjà commencé à discuter avec euh, euh, la DER, donc sur une enveloppe donc, à confier aux, aux jeunes de Thiès. Donc j'avais d'ailleurs commencé avec le ministre Amadou Ndiaye, le ministre Alun à discuter avec la DER pour un programme spécial pour les jeunes de Thiès. Ça, on l'avait entamé tout juste après notre entrée au gouvernement. Malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Nous allons poursuivre avec l'ADER à que l'avantage de l'ADER, c'est Avec les banques, ça tourne entre 7 et 10 Ça peut aller même jusqu'à 20 Mais avec la DER, c'est 5 Donc nous avions commencé les, les, négociations. Mais aujourd'hui, j'ai annoncé pour cette cohorte, pour accompagner ces jeunes, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Donc moi, j'ai déjà mobilisé les moyens pour déposer la caution, payer les intérêts, pour quand même nous puissions, avec cette enveloppe, mobiliser 50 millions pour les jeunes de Thiès. Ça, c'est un euh, premier jet Donc j'ai dit, s'ils sont efficaces, s'ils remboursent correctement, nous allons peut-être passer à l'échelle, aller jusqu'à peut-être 100 millions, comme les femmes. Donc c'est ça que je souhaiterais quand même. Mais évidemment, emploi, nous avons depuis le début continué, à, je les jeunes à se rapprocher davantage du pôle emploi. Nous allons continuer naturellement à les sensibiliser. Nous avons également demandé à ce que les procédures également au niveau de, surtout de l'État Ça, nous allons continuer à sensibiliser, à ensemble. Mais l'enveloppe de 4 milliards de, de c'est pour les jeunes du département. Donc continuer avec l'ensemble des jeunes du département à sensibiliser pour qu'ils se rapprochent davantage du pôle. Mais également, nous avons demandé à ce que le, le, le coordinateur aussi du pôle puisse continuer à, pour, à suivre les jeunes qui ont bénéficié de, ces formations dans les métiers du numérique pour que s'ils veulent être plus ou moins par des bourses de formation Mais pour ce qui est également des financements, le Pôle emploi continue à, à financer tous les jeunes dans tous les domaines. Mais vous savez, avec le numérique, c'est presque les startups, c'est dans les domaines, dans les métiers de l'innovation. Et pour cela, naturellement, le chef de l'État avait déjà dégagé milliards, qui est aujourd'hui euh, euh, euh, renforcé à milliards, uniquement pour les jeunes de Thiès, j'ai vraiment décidé d'accompagner en mettant 50 millions donc pour, euh, dans un